Música seen journal de la FIDAK 29e édition bu foire internationale bu euh, Dakar tey nag ñu daal di ñëw fii euh, ci pavillon vert set si ñi nga xam ne ñooy malien yi ñëw exposé seen i ay euh, produits fii ci foire bi ñoom nag ñu ci ëpp ñu ngi jaay li nga xamante ne ni mooy ay bubu traditionnel ñi di jaay ay cuub ñi di jaay ay cuuraay ñi karité ñoom nag ñu ngi ne que foire bi fi mu toll nii mu ngi dox ndànk-ndànk rek ñu déglu leen waaw man beurre de quartier lay jaay <laughs> beurre de quartier bu jógee Mali bu naturel um, um, am na ci pot yi dans les pots c'est très naturel bi pour peese la mais man nañ ko lekkee on peut le manger comme on peut mettre sur la peau hmm? hmm, bee c'est bi c'est fait à la main bi brut bi la ce que les mamans font boo xam ne c'est pas machine à la main léegi daal di koy à la main andi ko nit le moment fii dak cette année c'est pas comme ça xamewuñ ko nii tuuti tuuti rek sinon c'est pas ça waaw euh, bogolan bogolan euh, fabrication malienne euh, à partir de de l'argile et des plantes Donc, euh, c'est ce qui donne les couleurs comme ça. Et on des housses de coussins dans la décoration intérieure. Et comme on le dit, euh, tout ce que tu fais, si tu ne l'aimes pas, personne ne l'aimera. Euh, mu ngi doog tuuti tuuti quoi parce que client bi édition précédente là bi nekk na mais actuellement avec le Covid. Euh, les bi pas Négoul, mais Yalabagna, on peut dire, parce que comme on a quitté Bamako pour venir, on ne va pas se plaindre, mais les, les années précédentes, c'était encore euh, intéressant. Bon, on espère d'ici la fin que Dakaroises et Dakarois, Dakarois Sénégalaises et Sénégalaises, Sénégalais pourront venir les acheter les belles pièces. par exemple il y des euh, produits comme boule noire yoo xamante ne dafa baax pour les mauvaises odeurs vaginales pour les femmes en même temps aussi les perte blanches baax na aussi pour ñi am hémorroïde ballonnement biir yi nga xam day day jékki-jékki rek graissé da koy dégraissé loo mais c'est très bon. aussi wa waa yaa cuuraay waa cuuraay yu baax la vraiment. waa day attiré day day tee sa sëy dalay yàggal aussi sa biir néegu sëy. place boo mënti nekk aussi dara fay xam nga day da ngay yàgg foofu day attirer ay clients liggéeyukaay tout ça fii moom ay secret yu baax fi am. Et moi, je vendais du Chouraï, Chouraï du Mali. Je suis malienne. Et Chouraï Sarakatane, et Djigité et, et Guéni. Et, et avec Secret des femmes. ñi nga xam ne nag ñoom ñooy clients yi ñëw jënd si fii jàpp nañu ne euh, fii ci pavillon vert fi malien yi nekk daanaka produit yiñ fi mën a am bu foire bi jeexee day jafe loolu ñu daal di koy gisaat. waa xam nga jigéen moom day soxla yu bari si biir këram donc euh, dañuy wër pavillon yëpp lu ñu xam ne dañ koy manqué comme ay Sénégalais ñu soxla lu nekk Sénégal jarul ñu koy wuti feneen ñu ngi am nañ ko suñu biir dëkk mais. xam nga ñu ci seddaay bi da ngay soxla say cuuraay xam nga te Mali moom ku ne xam ne cuuraay far soxe ko baax ak yenn affaire yoo xamante ne pour sa biir néeg la. waa dafay jafe parce que il faut nga am kuy dem Mali ou bien ce sera difficile je euh, sais pas comment expliquer euh, dina difficile daal pour nga am waaw moo tax ñu profité pour ñëw ci ci ci ci euh, foire bi parce que exposants yi nag di dolli ne am nañu yaakaar ni balaa foire bi di jeex seen wërsëg dina gën a yokk lii la ñu leen indiloon ci seen journal de la FIDAK dox daje demain incha allah.